boobu euh, mi ngi jëm ci Babacar euh, Kanté ancien juge conseil constitutionnel on précise bien ñu euh, nee na amul benn loi buy garantir indépendance su juge yéenekaay bii di laas lañ ko jàngee ma des ak Pape Djibril mi daane léegi Babacar Kanté nee na amul benn loi buy <laughs> mandargal indépendance su juge hmm. bon je pense que il y a eu des progrès dans ce domaine la ci wàllu législation pour gën a dimbali juge notamment ci seen carrière ni ñuy avancer yooyu les magistrats et tout mais dama wax ne loi yi gën a parfaite soo ko amee nit ki li tax mu indépendant wala taxawaay bi nga xamante ni moom mooy am te yaakaar naa badanteer moom moo ko tuddee woon devoir d'ingratitude kii daal ne euh, Ousmane Diagne bi ma nekkee procureur de la République dama use sama droit de de de ne pas plaire à chaque fois que j'avais besoin de dire non j'ai dit non je pense que te loolu leen ko may ñoom xëy na du école nga koy jàngee e dafay dellu si li fay doon wax léegi il faut aussi que nit ñi am na ci ñoo xamante ni ñooy tëral seen bopp mais kenn tëralu leen je pense que loolu aussi lu am solo mhm. waaw je crois que li mu wax nii hmm. euh, boo ko boo par dans l'image boo ko transposé si wolof dafa bëgg wax ne pesum pesum olof la bu ñu la pesee c'est toi qui dois régler ton propre problème. pesum kanam kanam borom moo koy. fayal boppam voilà c'est ça le sens de de l'histoire moo tax borom même beneen de kii mu koy wax léegi il il faut aller au-delà des institutions des garanties institutionnelles. il faut aller au-delà. des garanties institutionnelles il parlait au juge en fait xam nga institution bi lu mu ko protéger. Mm-hmm. mais pour nga ind ça c'est la convocation de l'indépendance donc dépasser sax loolu ça c'est pour renforcer l'indépendance donc payum loi du ko protéger nit mooy c'est toi qui. Baden Robert Badinter bi ko Mitterrand fale ba pare li mu ko njëkk a wax léegi sama devoir d'ingratitude <laughs> envers yow. <laughs> laay njëkk kii. Ah, ah non Malal ñeme woo Malal s'il te plaît rentre Malal rentre chez toi. bàyyi wu terminé. ah oui continue. non man du jox ko non et Malal da jëlal jëlal si si il a son Malal tu unique. assure-toi que assure-toi bon donc ñu ngi woon ci. may naa ko jox naa ko sama wàll. non non vas-y le temps mu tàkk micro. non non mais loolu <laughs> ak yërëm ak yërëm mais gars yi dañ ko dimbali. kii defe naa ci taay ah, yërëm bi la newoon xanaa gars yi dañ leen tuddee xanaa gars yi dañ leen tuddee. voilà bàyyi ko der der may jox naa ko man kañ. man kañ ah, man kañ j'ai compris j'ai compris mooy ba nga soloon États-Unis ah. non xaaral Charles ñu continuer ci gis-gis bi. non yow man naan la. mal malal paas naa ko ko koy. Euh, temps de parole alors Faye loo gis ci juge bi li mu wax. vraiment aw ma ci. <laughs> jàngatoo ci dara. malal jox naa la kàddu gi alors. juge bi lan la wax. di tout ay juge bi lu mu wax kañ xoolal bu la bu la neexee bu ci dugg yow kañ wax bu foo woon ba heure bi malal. maa ngi woon Géejawaay. Ah. dañu doon waxtaanee waxu assainissement. ah ok looloo la seyoon. mu ngi doon waxtaanee jeunesse urbaine et assainissement. Hmm. naka la ñuy fexe ba ndaw ñi approprié wu les question d' assainissement. Ah, te ñu nit fi assainissement lañ fi doon wax. waaw mais fan yi dama nekk si benn coow bu xaw a doy waar. Hmm. dafa am lu ma wax ci benn site internet. nit ñi jël photo Serigne Touba jël njaxasu Baye Fall ne man damay. damay déngaat murid yi damay méngale. te mbaxane bii ma sol sëñ Abdou Karim moo ma ko may. pour moi les mauvaises intentions baaxul les gens doivent être bien pour man on est dans un pays de de débat et on doit refuser que l'internet soit censeur de pensée nit ñi dañu war a am sañ-sañu wax seen xalaat man loolu lu ma gëm la et je continuerai à dire ma pensée et on ne peut pas m'obliger effectivement à à être d'accord sur tout te lu ma leerul leeru ma lu la leerul leeru la je ne veux pas revenir sur des détails mais sëñ Abdou Karim mu ngi may seetaan may na mu lu tolloog 1000 mbaxane donc Baye Fall yi kenn ëppale ci ñoom te ñoom ils savent ce que je dis donc ça ne passe pas c'était important que je dise ça. moom la loolu rek thème émission la buuba kii dafa mel dafa ñëwoon pour indi thème bu bees. noonu la kon moo tax nga son jaxas bi. non xam nga dama xam nga dafa am anecdote bu ma nettali. ci mhm. sama déedéet mbalal non non mun nga bàyyi mu ñaan naa la ko rek. comme ci internet la xewee non garaawul bàyyi ba mu nekk danga tardé. li mu la ñuy bañ non man ma xam ko ba nee naa ko du mooy affaire bi amoon États-Unis. oui ma ah, ah, bàyyi ñu ko bàyyi ñu ko gis-gis bi. gis-gis ah, bi en fait monsieur pour man eh, eh, pour man pour man pour man pour man dëkk bi instant bii nii. Euh, xam nga tey man dama bëri ay mouvement jóge naa ci jeunesse urbaine sànq maa ngi woon ci conférence de presse wu Guy Marius Sagna et cetera et cetera c'est-à-dire su may dégg ay ay ay avocat di wax wala ay procureur di wax je suis toujours sidéré parce que aujourd'hui pour man la question centrale aujourd'hui c'est où va notre pays avec la liberté d'expression parce que on ne trouve pas d'explication à l'arrestation arbitraire de Guy Marius Sagna alors moom moo dugal dernier gis-gis bi parce que boobu la concerné